jigéen ñi ñiy jog di dem si ceet yi ñooy bëri ba buñ jógee guddi buñ demee dëkk ba sax duñ fa xaj waxantuma laa kër ga ndax muurab guddi bi aada la cosaan la kumpa la te si pësin bi la bokk ndax suñ la muuree guddi guddi lëndëm la jigéen ñu jël malaan muur ko loolu pësin la mooy góor gi ñu ne la li lay ah jigéen matut dañ la ko muural luñ muur luñ nëbb la guddi luñ nëbb la ndax guddi dafa am bëccëg xam guddi luñ nëbb la te jigéen dama yàlla baxal matuñ dañuy mottale lëndëm gi mooy nañu suturaal muur bi mooy nañu doolee kumpaal li li nga xam ne lu matut la ndax jigéen matut moo tax muur luñ muur luñ nëbb la loolu pësin la jigéen ñi kat say néegam say ah dimbalante la ndax góor rek mënta yóbbu kët soo gisee man ma doon laal ne si ngoro yi jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi loolu ñun defuñ ko yàllaa ko def suñu wàññee can yi cani ngoro yi mag ñi man daan naa dégg si nettali am na koo xam ne fii ci dëkk bi la yaayam moom ma soon a wax ne ma man biñ may wut maa ngi laccal sama yaay cere ki ma doon wut bi mu ñëwee dërëmu CFA la sànni si biir lacc cere bi bu ma génnee dërëmu CFA bi fas ko ma la fitu ma laan mu dem ñibi wan leen ne leen jël nañ suma guru dërëmu CFA loolu matu tarañ su léegi nag ay junne ngay nuyoo soo xamut junne doo ñemee dem ñàkk sëy gi ñàkk sëy gi bëri tax li ñu teg ci sëy bi laaj la loo xam ne yow dem nga ba dugg soo ko manut la nga wacc sa kër ga war ko xamee sa jabar da ko jaay def ko ci biir sëy bi su jabar ji ñëwee doo mën a am dépasse coow li bëri ñu ne joxuñ ma dépasse bu mat ñan naa ko le defuñ ko ba tax na nañ seet sëy yi li ñuy ngoroo li ñuy canee jabar yi li ñuy def si jabar yi ñu xenal ko si yombee ba xëppit xam na si ñoo xam ne su fekkee ne defuñ ca lu bëri xëllëg dañuy wax ne def leen yomb duñ ko xamee waaye suñ ca defee ba la nga xam ne loolu lañ waroon a xamee borom jaay nañ ko def si ngoro gi bu borom ñëwee duñ xam luñ ko xamee ndax fas wa nga war a bayee jaay nga ko yow jiw wa jaay nga ko dugal si ngoro gi soo bayut bu subaa kër gi jafe-jafe moo fay nekk. ma bëggoon ñu waaw dafa jege gor lool. ma ragal ne ñaari gor ñooy seq ngoro ñaari gor ñooy seq mu nekk ngoro ba ñu seqee mu ngi mel ni ku nekk kon am na loo jiital ci bañ a bañ a bañ yi bu fekkee ne loolu la day gor moom boo ko defee ne teraanga gor ga nee na teraanga man doo ko fee fàtte waaye li may ragal moo yi nga laaj nit loo xam ne amu ko bëgg na te lañ koy laaj amu ko mu lebi xam nga lay xew bu kii ñëwee yërmande ba mu waroon am ci moom du ko am ci moom ndax la muy gis mooy ba mu takkee coono ga ca fekk dafa bëri waaye bu fekkee ne da ngay jëflante nit ci ngor loolu nag la ñuy seetaat kan moo gore ba ñu mën a jëflante moom ci noonu dama ne gor amu fi de gor yaa ngi fi wallaay gor yaa ngi fi waaye nag li nga xam ne moom mooy liy yàq dafa bëri ba dootoo xamati kanay kan waaye dama yaakaar ne nit ki daal bu fekkee yaa moom ci teraanga jëflanteel moom ci teraanga te xam ne yàlla rek mooy fay. dëgg la El Hadj Babacar Thiam jërëjëf sa wax bi rafet na góor yaa ngi fi li nga wax loolu dëgg la danga gis ku may nit jabar fii daf fi am ka nga may jabar can sax du ko am waaye yow goro bi lam war a def yaay dem ci suuf di ko jël di ko dimbale ndeg bëgg sëy bi dem bëgg bu ëllëgee sa doom bu demee mu xame ko. loolu tam am na fii bu loolu mooy dimbalante baa fi waaye cosaan yi daal comme niñ ko waxee rek moo xaw a manqué nañ delloo sëy si muuri aada yi naan def di ngoonaar di wéyal ngoonaar bi lu bëri la ñuy wéyal seet bi mu di ko dégg di ko jàng a léegi ngoonaar daanaka amatut suñ lay muur ñu ngi taxaw si bunt bi di la wéyal ngay dégg yow seet bi ñuy moo liñ lay wëyal suñ muuree ba pare bàjjan yi dugg ndey yi dugg yaay ñu tiim la di wëy fiñ la muuree di la wëyal cosaani wëy yi wax la wëy bu nekk wax la su ko defee yow boo demee wëy boobu ñu la doon wëyal wax la yow itam bu dee ku neex a digal nga si loolu ngay jël di ko sëyee di ko doxee di ko waxee ba tax na ma ne ñu delluwaat ci cosaan biñ daan def di wëyal séedi di leen wëyal su demee ba ci jëkkër ji itam soo déggee ñu ne raame raame bi it boobu itam cosaan la raame bi am na lu ñuy def si biir jëkkër ji am na luñ koy defal jabar ji am na luñ koy defal ndax ci jamono jooju biñ fa tollee képp koo xam ne sëyaguloo si jigéen doo ko fekkee sëyaguloo ci góor doo ko fekkee ndax xamaguloo aada boobu dañ lay génnee si biti si jamono jooju itam jigéen ñi am na lu ñuy wëy ci biti foofu dañ fay taxaw ba bëri bay firi seeni kaala ba xamante ne ñi nekk si sa gannaaw te muuruwuñ duñ gis li ngeen di def ak li ngeen wax ba tax na cosaan boobu nañ ci dellu buñ ci delloo rek yërmande bi dana gën a yokk si ni meloon nii kon nag tey ci bési tey bi a ah, li war a wax bëri na waaye ñi war a wax bëri nañ di am kontaan si seen ñëw gi bu baax a baax. sëy bu njëkk man dalee ko man sama bopp suma ma xaaw xam naa ko de waaye xuti wu ma ko su ma ñaareel xuti wu ma ko léegi nag sëy comme li suñ kansolo bi fi waxoon fii léegi si gannaaw da ngay gis nit fële sa ci yow gis fële. ngeen boole dox daje waaye sëy bu njëkk ba ma doj cosaan nga xam ne sëy daf daan am dañ daan toog rek ñu ne la diw kaay seeti diw wala naa la takkal diw nga jóg dem ñu takkal la ko may la ko isil ko yow sa dërëm doo sa xam dara doo ko sa xam yëpp sa kilifa moo ko daan def ba nga jël jabar ji man def naa ko lu benn du dafa am jigéen bu wax fii ne sëy yu bëri ah ci am problème si denckat bi la dëgg la denckat bi moom li indi dajale leen moom moo war a emale ñëpp waaye nag ah emale yombut de yàlla yemale wut nga ñëwaat foofu yemale yombut yàlla yemalewut waaye xam nga lan moo garaaw boo ñëwee ci kii xaskale loolu gars yi dañ koy def torop yàggaleel dégg ma ne yemale baax si yow man ngaa baax si moom si suuf lépp doo mën a baax si moom xañ na sax c'est ñu indi histoire waaye ki baax si yow nag yow war ngaa mën a baax si moom si suuf moo tax ma ne MLA yombul parce que yow soo dencee ñeenti jabar ah kenn ku ne da xëy si yow da gont si yow kenn ku ne waroon loolu waroon ko xëy si yow gont si yow kii xëy ne si soxlaam ne si la war a def ne si mat ba kële moom ngaa seet yow foo war a ndékkee ak foo war a añee ak ñaata nga xam ak moom lu mu amoon mu dumbale la si ndax wax dëgg yàlla yonent ba bu ñu julee doom yàlla sax du leen xamale kon man dana la mën a xamale ah, kon nag yëf yi mu si góor ni waaye mu si jigéen ñi ba pare itam mu ne yi defuñ leen xaawo moo deful boppam man tey suma xaaw tey bu mu toogoon bu guddi mu ne buy ñëw suma néeg dafay nëbbu da làqu da seet fu muy war a jaar ak lan sëy du lool sëy boo sëy ayee yow yaa ayee soo aye ba jant bi soo ba sa ruus doom bi fa juddoo itam xam nañ ne dégg nga am kii suma baay ak suma yaay la lii ci lay nekk nga jaar si dégg am li nga war a jaar ak ñoom keneen ki ñëw jaar noonu keneen ki ñëw jaar ak waaye fu mu nekk nii tey nga am fanweeri at wala ñeent fukki at ne man bala ni nga ne nag léegi nag nañ def ne yow du la mag te yow nga ne mag yaa magal sa bopp kon la mbokk yi ñu leen di gërëm bu baax a baax euh, waxtaan wi nag gën naa yaatu li waaye nag waxtu wi moo ñu dab euh, ñu leen di ñaan rek em ak yéen fii tey beneen bés waaye incha ñu jekkali waxtaan wi nga xam ne ñu ko tàmbalee fii ci kër ko rek It is a Gambian brain and heart at work which is why we can identify and understand what it takes to build and maintain trust. It is no coincidence Trust Bank Limited, a Gambian bank, A Gambian managed entity has become the highest employer in the industry. Widest ATM network and with the widest branch network and counting. We believe in putting you first. That is why we play our part in nation building from sports to education and play a meaningful role in complementing government efforts in